منا وبين سرتي بوبي تبارك وتعالى بجلية سلم الكسر سنه بتقبل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مومت نيغم تواترم أتي سابام أتي كتب سيريون بابا سادي تخو بلور وين ينان بوم بتبارك وتعالى بولي يدف التوفيق لكل خمين تنمو روتي تبير بيه ci lëm bi ci ay njariñ yàlla ñu ci borom bi tabaraka wa taala boole jariñ fi may tàmbalee mooy di fàttali saa bopp di leen fàttali ne xam-xam bii nga xam ne moom la ñuy xamlu fi muy xam-xamu sharia kenn du ko xamlu ngir dar rey àdduna ku ko def alkande ñeel na la yàlla ci yàlla musal fi musal leen ci loolu waxuma ko waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yonent yalla bi neena kep ko xamne xam ne yaa ngi sàkku xam sharia bo xamne ne yalla dong mo wara tax ñu di ko neena yow sàkku wo ko lu nga am ci poñetum aduna neena na bu ëllëgé xetuk aljanna du la ci yalla musal kon ba nga jëlé sa kay ngay ko xam-xam mo xam ak téré la mo xam ab kaye la moo xam lu mu doon jëm si ci birab bi ngay sàkkoo xam-xam te li la yëkkati mooy sàkku xam-xamu sharia dara wërta nekk ci sa xol lu ne maa ngi dem jaamu yàlla ndax xam lu xam-xamu sharia ci jaamu yàlla yu mag yi la bokk ndax borom bi tabaraka taala kët ku mu namm ci yow aw yiw dalay mayu dégg ci diini لولو يننت بي صلى الله عليه وسلم موخ وقت حديث وخمني معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما موخ جلتي موم بخاري المسلم صلى الله موني كويا لنا نتيو أويو دلالي ما يفديك في دين أكديك في دين لك كن ملوكو أم لدر رجان خملو jang nak bu tiagentene ku jeerul sa téré dem tok ci jakaja wala tok ci école ba ca ban ya rek boko def nga ku la gën a xam diine nga may ko nopp mu wax la li dagan nga cey góorgóorlu wax la li araam nga wan ko gannaaw li mooy jàng saaba yi xam nga ni ñu doon jàngee ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci bi danaa leen lii baax na ñu daw njëkkante lii bon na ñu wan ko gannaaw looloo tax saaba yi raw ñëpp ci jëf ñun nag illa man rahima ñu baree bari li ñuy xam lu mo ëpp li ñuy jëfé nañ ko tan ko lool nañ fexé ba lu ñu jàng jëfe ko xolal ci bis bi bi nga yéwo ba ni lay tëdd lan moy sa programme lan la la sharia tëral ngir nga def ko ak lan la la sharia wax ni bu ko def ngir nga won ko gannaaw nga lu ca nekk ku def loolu mu tege ci cellal bu tege ci ndigal ya nga ca yoon kon loolu lañ nga won nañ ko fàttali sunu bopp di leen ko fàttali ci jataay bu ne lañ koy faral di fàttali benen bi moy, euh, yaakaar na ni li ñuy def du ak conférence waye kaddu la bu ñuy yëkëti ngir fatali suñu bopp fatali mbokk julit yi tomb bo xamantene mbokk yi sas ñu ngir ñu waxtaan ci ci ak tënk ku tënku moy lan moy am solo bo xamne jang wétal yalla jang pass pas-pas ko solo ak di ci wote wéetal yàlla pas-pasu lislaam xam lu ko di ko jàng solo si mu am waaye ginnaaw bi nga ko jàngee jëfe ko woote ci it solo si mu am loolu yaakaar naa ni kenn ci yéen réeréwu ko waaye nag ak fàttali lay doon mbokk yi ak tawxiid muy wéetal yàlla buñ ko waxee ci xamle bu matale goo xam ne mboolem luy xaaj ci tawxiid day dugg ci biir mooy lan mooy ifraadullahi bi xaqihi baat bu gàtt ifraadullahi bi xaqihi mooy nga kennal yàlla wéetal ko ci mboolem luy àqam loolu mboolem aqsaamu tawxid day dugg ci biir moo xam xaquhu fi lmaarifati wal ithbat moo xam àqam gi nga xam ne ay jëf la yoo xam ne moo ko jagoo moom képp wala ay melokaana ci tur yoo xam ne moo ko jagoo moom képp nga xam ne jaam bi da koo war a xam ne yàlla moo jagoo lii saxal ko dëggal ko ci ab xolam moo xam xaquhu fi talabi wal qasd moo xam àq la joo xamante ne jaam bi day xam ne yàlla daal mboolem lu jaam yi di def ci ay jaamu yàlla moo xam yu biir la moo xam yu bitti la yàlla képp ko jagoo kon ifraadullahi bi haqqihi kennal yàlla ci luy àqam mom yàlla lolou moy xamle tawhid gi gëna ma tay lépp a ci bi waye at tawhid mbokk jullit yi buñ ko waxé joyal ko ci sharia liñ ci jublu moy tawhidul ibada at tawhid buñ ko waxé joyal ko liñ ci jublu moy tawhidul ibada moy wétal yàlla ci jaamu yàlla yi nga xamné jaamam yi dañ koy def jaamam yi dañ koy def wéetal yàlla googu boo ko doon xamle looy wax da nga naan ifraadullahi bil ibada mooy kennal yàlla ci mboolem xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne moom la jaam bi di def loolu mooy ifraadullahi bil ibada kon su fekkente ne xam nga ni yàlla subhanahu wa taala luy àqam dañ ko cee war a kennal te mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xamante ne moom la jaam yi di def ak yàlla dañ ko cee war a kennal kon bu boobaa nga xam ne kon wéetal yàlla mooy nga kennal ko ci ay àqam ña nga xamante ne ñoo jiitu woon bu njëkk ñooña amuñu woon problème nag ci wéetal yàlla ci ay jëfam ñi doon dund ak yonent bi nga xam ne ay yéefar lañ woon ñooña seen problème bariwul woon ci waxin wi gën a jóg ci wéetal yàlla ci ay jëfam gëmoon nañ ñoom ne Yalla mooy bind yalla mooy wërsëgal yalla mo yor mbiri jami lepp ci loxom la nek comme niko alcorane waxe bo len laaje ngeen ku bind ku ku yor mbiri jami dañ naan la ñom la doon seen problème mooy li ñi def nak ñom ci ay xeeti jaamu yalla muy yaakar muy ren bi muy ñaan dañ koy defal keneen ku dul yalla ngir kookee jegee leen yalla kon ñoñu amuñu won problème ci ni yalla bind yalla duñ woon ay julit nag li gën a yéeme nag mooy tey sunu jamono am na ñoo xam ne ay julit lañ te dañoo am problème ci wéetal yàlla googu ak yàlla googu nga xam ne ay jëfal la nga xam ne moom képp moo ca wéet te yéefar yi saxaloon ko am na ay julit yoo xam ne jëfi yàlla yooyu dañ koy jël jox keneen ku dul yàlla saxal nañ keneen kuy bind ku dul yàlla saxal nañ keneen kuy wërsëgal ku dul yàlla saxal nañ ku yor mbiri jami yi seeni mbir ñoom koo xam ne moo koy méng ko dul yàlla muy nag ak wàcc yoon boo xamante ne amul woon ci kanamu yonent bi ba mu jaamaarloo ñëwet di woon yàlla di dund ak ñoom di dund ak moom mu leen di woo ci yàlla ba ba ñu saxalee loolu mu leen doon woo ci yàlla loolee ñu saxal taxul woon ñu nekk ay julit taxul teewul woon mu leen di woo ni leen nag ginnaaw bi ngeen saxalee lii xam leen ni ki wéet ci bind wéet ci wërsëgal wéet ci nga xam ne mbiri jaam yépp ci loxoom la ne mooy manipuler jaam ñi moo yor mbiru àdduna bi ni yàlla ni mu wéete ci jëf yooyu noonu la war a wéete ci mboole xeetu jaamu yàlla goo xam ne da ngeen ko koy defal sañu leen koo defal keneen sañu leen koo defal leneen te bu ngeen gëmul loolu li ko jëfee du ngeen nekkagul ay jullit ba mu sax xeex ak ñoom ci loolu waaw kon yonent bu doon dafa ñëw am ñu ne ko gëm nañ ne yow yaay ki yàlla yónni gën nañ ni yàlla rek moo yeyoo ñu jaamu ko ba pare ñu ne kon am na beneen keneen kuy bind ku dul yàlla wala keneen ku ñuy wërsëgal ku dul yàlla wala am na koo xam ne moo yor suñuy mbir di ko doxal bal moo yor mbiri àdduna bi di ko doxal comme niñ ko ñu bari ci jullit ñi gëm kon ñooñu lu yonent di wax ak ñoom ak nu muy def ak ñoom kon bu ñu xamee ne lii am na ci biir jullit ñi ñuy dund ak ñoom ñu yor sunu der di làkk su sunu làkk ñuy dajeeg ñoom suba ngoon ngoon guddeeg bëccëg bal ñu di ko fésal bu boobaa nag war na ñoo xam ne kon xam lu tawxiid ba mu leer ci sunu bopp ñu jëfe ko xamal ko jaam yàlla yi loola day solo si réew waaye am na ci jullit yi ñoo xam ne dem nañ sax ba jéggi na foo xam ne moom iblis yeggu fa xóotaluma ay wax loolu lu am la iblis ba mu weddee yàlla ba muy wax ak yàlla lu mu doon wax rabbi anzirni ila yawmi yubaatuun yow sama borom yow sama borom la iblis wax yàlla ne ko lankal na yàlla ne ko duma la jamm waye nak ànd ak lolu xam na ni yalla ay borom waye amna ci bir julit ñi ñuy wuyu turu l'islam nee yàlla mom waxuma la amna keneen kuy bind ku dul moom waaye yàlla dafa am bindé fu ko bind fa سبحان ربي العظيم سبحان الله عما يصفون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ñu di ko wax ci am réew moo xamante ni quatre pour cent ci ñi fay yeewoo ay julit lañu te dara du yëngu mel ni dara xewu kon lu mel nii bu amee dañoo war a xam ne kon kët am na solo lool ñu nafar tawxid bi nga xam ne moom la yàlla yónni woon sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam nga xam ne kët yéefar yi nekkoon ak yonante bi lañ doon am problème ci jaamu yàlla yi ñu doon defal xërëm yi gannaaw bañ gëmee ne yàllaay bind yàllaay wërsëgal ainsi de suite am na ci jullit ñi ñoo xam ne non seulement dañuy jël ay jaamu yàlla di ko jox keneen ku dul yàlla waaye jëf yi nga xam ne yàllaa ko jagoo te yéefar yi saxalaloon ko ko dañ koy saxalal keneen ku dul yàlla ñoom bal sax ñu jéggi loolu kon loolu mooy xamle tawxiid waaye ak solo si nga xamante ne am na ko ci laytaay boobu tomb yi nga xamante ne ci tënk moom lañ bëgg a waxtaane ñetti tomb la ci solo si nga xamante ne jàng tawxiid am na ko bu weesoo li ñu wax léegi mooy lan li ci jiitu mooy tawxiid dafa nekk loo xamante ne dafa am solo ci jëmmam maanaam jëmmi tawxiid jëmmi wéetal yàlla ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi ko jaam yi di defal loolu day solo su rëy def cee lu tax mu am solo mooy tomb yi may bëgg a tudd bi si jiitu mooy tawxiid te mooy wéetal yàlla loolu ak boroom borom bi tabaraka wa taala ak yàlla la buñ nee tawxiid nag comme ni ma ko waxee woon léegi buñ ko boyalee rek liñ ci jublu mooy jaam ñi jaamu yàlla yi ñuy def ñu wéetal ci yàlla doonte léeg-léeg danañ wax tawxiid jublu ci jëfi sunu boroom ak melokaanam ak jaamu yàlla yi ko jaam ñi di defal lolu àqi borom bi tabaraka taala lolu rek doyoon na sëkk ci am solo bu xam lu ko am solo ak ci woote borom bi tabaraka taala mom kep mo yeyo ñu jaamu ko ndax lan ndax ñaari ñu bir mu ñëk mi moy borom bi tabaraka taala moy ki nga xamanteni mo bind ñep mo mom lépp mo mom ñep mbiri jaam ñep ak lepp aduna lu dul adduna ci loxo borom bi tabaraka wa taala la nekk képp ku melul nii yeyoo woo ñu jaamu la kon yàlla li tax mu yeyoo ñu jaamu ko mooy moo bind ñépp moo moom lépp moom ñépp te mbiri addunaak allaaxiraak asamaan ak suuf ak la ne seen gannaaw la ne seen diggante lépp lu am ci loxo yàlla la nekk moo koy doxal amul kenn koo xamante ne bokk na ak moom loolu kon mom mi nga xamne mo wet ci lolu motax nak mom mo wara wet ci mbolam xeytu jaamu yalla bu jaam bi di def muy julli muy wor muy ñaan muy midir muy rendi ba xeytu jaamu yalla yi jeex ñaareel bi nga xamantene motax yalla subhanahu wa taala tawhid di akam jo xamne mom kep moko yewoo moko mom mo yalla dafa melo ay melokaan yoo xam ne dafa kawé ci ak matay ca baxtalu matay la yegg te kenn melul ne moom ci melokaan yooyu am ay tur yoo xam ne dafa làmboo ay melokaan yu mat yu rafet kenn melul ne moom ci melokaan yooyu ci xam-xam bu matale ba ca dégg bu matale ga dara du ko wum ca gis bu matale ga lépp bëta la ñu ci tege moom yàlla dara du ko wum nga topp noonu mboolem li nga xamante ne ay melokaanam yu yàlla képp mel noonu melokaan wu mag yooyu ku ko amul yeyoo woo ñu jàmm la te kenn amu ko dul yàlla kon moom dong moo yeyoo ñu jàmm kon tawxiid muy wéetal yàlla ak xam la comme que ak bi da koo war ngir man ko yelloo moom yàlla subhanahu wa taala kon loolu mooy tomb bu jëkk buy wane ne tawxiid jàng ko dafa am solo jëfe ko dafa am solo waaye di ci woote it dafa am solo ñaareelu tomb bi mooy tawxid muy wéetal yàlla ci mboolem xeetu jaamu yàlla yu jaam bi di def moo tax yàlla bind bindeef yépp bindeef yépp looloo tax yàlla bind leen lan mooy firnde li borom bi tabaraka wa taala moo wax ni wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yacbudun binduma nit ak jinne lu dul benn objectif maanaam benn raaya mooy ngir ñu wéetu ma jaamu lii moo tax ma bind leen bi maanaam lii laa leen sant waaw lu tax yàlla fii tuddul malaaka malaaka yi jaamu yàlla rek la def lu tax yàlla léewul dama bind malaaka yi pour ñu jaamu mala yi lu tax yàlla néewul dama bind mala yi ngir ñu wéetal ma jaamu ma moo ne day yàlla nee na wa in min shay'in illa yusabbihu bi hamdi amul lenn même portable bi di sabbal borom bi tabaraka wa sabbal yàlla mooy lan mooy lan sabbal yàlla mooy sellal yàlla ci lépp lu mu yelloon nga setal ko ci ba mu set wecc li mooy sabbal yàlla kon booy julli këpp sab jënaan subhaana rabbiyal aala bàyyi la xel loolu mooy yàlla lépp loo xamante ne yelloo woo ko maa ngi la ci setal ba nga set ci wecc moo tax yàlla bu ba mu tuddee gaaña wax gañ wax ci moom ci àqam naka sudul noonu lu mu wax dani subhaanallah amma yasifun Yalla set na wécc na ci li nga xamantene ne loolu lañ koy melal ci ay melokaan yoo xamantene ne ko mom borom bi tabaraka wa taala rab kon ya, ya, yàlla nee amul lenn loo xamantene ne am na di mbindeef moo xam day dund moo xam dundul manam moo xam daa yor bakkan moo xam yorul bakkan moo xam mukallaf la moo xam du mukallaf ludul ne lay sabbal borom bi tabaraka wa taala kon tumran tumurankewul ku ko jaamu de waaye léegi lu tax mu ne dama bind nit ak jinne mu setti nit ak jinne rek bàyyi malaaka bàyyi na mala yi ainsi lu dul ñu jàmm lu dul nit ak jinne rek benn nekkul mukallaf wala mu nekk maasuum malaaka yi maasuumuuna maanaam dañoo jomb tabbi ci wuuteeg ndigalal borom bi tabaraka wa taala laa yaasuuna allaha ma amarahum kon ñooñu loolu taxu leen a jóg kon ñoom moom yàlla da leen a bind mooñaale leen ñu koy jaamu te mënuñoo mooy yàlla kon ñooñu lii taxu leen a jóg nit ak jinne nag mooy ñi nga xamante ne ñoom mën nañoo tabbi lu naqari borom bi tabaraka wa taala mën nañoo it jaar ca yoon kon ñooñu mën nañoo jaar ca yoon wa mën nañoo jàdd yoon yàlla nag ne leen damaa bëgg ngeen jaar yoon bu leen jàdd yoon te li tax ma bind leen mooy ngeen jaar ci yoon mooy ngeen wéetal kon li tax yàlla bind mbindee fii mooy ñu jaamu ko nit ak jinne yi nga xamante ne ñoom mu mukallaf lañ te it mën nañoo jàpp yàlla ne leen damay leen a bind ngir ngeen jaamu ma man képp bañ maa booleeg lenn bañ maa booleeg kenn waaw ñu bare bari ci borom xam-xam yi da ngeen di dégg ñu naan buñ eggee ci laaye bii ñu ne al hikmatu fi xalqi al jinni wal ins tawxidullah aw ibadatullahi waxdahu manam hikma bi nga xamne motax yàlla bind nit ak jinne moy ñu wétal yàlla subhanahu wa taala jaamu ko duñ ko bolé kenn waxin woowu desena sew waxin wi ko gëna juk moy comme wi cheikh al islam ibnu taymia rahimahullah wax ci téeréem bobu ñu tuddee al ubudiya moy lan moy al ghayatu min xalqi al jinni wal ins ibadatu allah wahdahu li nga xamantene ne mooy objectif bi nga xamantene ne moom la sharia tër ngir bi tax yàlla bind nit ak jinne mooy ñu jaamu ko duñ ko boole kenn objectif boobu nag nit ki mën na koo atteindre waaye mën na koo bañ a atteindre waaye hikmatullah hal tatakhallaf maanaam yàlla xikmaam mooy mu defee ni mu war a defee ndax bu defé ni mu war a defee mbir ma dana tuxu mbir ma du tuxu motax waxin wi gëna juk moy nga wax ne al algaayatu min khalqil jinni wal ins ibadatu llahi wahdahu la sharika motax waxin wo mom la cheikh islam ibnu taymia jëfandikoo ci téré boobu tudd al ubudiyya kon lolu motax yàlla bind nit ak jinn waw li tax yàlla bind la yow nit ki nga xamne motax nga ñëw fi ci aduna lolu rek kon xam lu ko kon am na solo su rëy ndax boo ko xamul li tax yàlla bind la doo ko mën a dëggal te boo dëggalul li tax yàlla bind la doo texe bu ëllëgee yàlla ci yàlla musal kon foofu ngay xamee kon solo si nga xam ne xam lu wéetal yàlla ak jëfe ko ak xamle ko am na ko solo fii danañ fi taxaw tuuti ñun ñépp danañ faral di dégg ñu naan li tax yàlla binduñu ñun ñépp mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégguñu ko ba tàyyi loolu lan mooy firnde li kenn mënulaa indil firnde ci loolu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun dañoo gëm moo gën ci nit ñi ak jinne yi am na wuute gu am ndax moo gën ci mbindeef dañoo gëm ne moo gën ci mbindeef yi am na wuute gu am ndax yonent bi dañ araf bu gën ainsi de suite loolu taxuñoo jóg tey waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne mboolem kuy nit mboolem kuy jinne moo ci gën lépp loo xamante ne yàlla jox na ko ci ak julit bi daf ko war a jox ba mat sëkk te mooy ak ji kët mooy nga topp ko ci ndigalam bàyyi ay tereem booy jaamu yàlla nga teg ko ci njàngaleem waaye lépp lu mu wax nga gëm ko dëggal ko moo xam lu weesu la moo xam lu ñëwagul waaye nga bëgg ko mbëggeel gu raw gi nga bëgg mboolem bindeef yi li yombul de yombul waaye loolu àqam la moom yonente alayhi salaatu wasalaam àq jooju nga xam ne moom la ko sharia jox bu fekkente ni nit ki ñëw na di wootee bëgg sayduna muhammad ba mu jaral ko mu naan yonent bi ñun ñii ñépp moo tax yàlla binduñu lan mooy firnde li bu dee yonent bi moo tax yàlla binduñu kon faww moom wax na ko wala faww alquran wax na ko du ñàkk ni fii ay kaan yu mokkal alxuraan a ngi fi te gëm naa ni ñu xam sunna ñu ngi fi mokkal lu bari ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi kan moo ci teewul laaya wala xadiis buy wax ni mbindeef yi dañ leen a bind ngir sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn teewlu ko ci man de teewlu naa benn laaya mooy bi ñu jàng léegi mooy wa maa xalaqtul jinna wala insa illa li ya'budun loolu de yàllaa ko wax te ci façon boo xamante ne maanaam da koo tënk maanaam amul lenn lu xamante ne moo tax yàlla bind nit ak ginne lu dul ñu jaamu ko wéetal ko ci mbooleem xeetu jaamu yàlla yi lii yaxu waxu alquran la waaw xamuñu benn xadis buy wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbindeef yi yépp mbindeef yi yépp li tax yàlla bind leen mooy ngir jëmmam ñuy wax ne yàlla moom lenn rek la bind ngir boppam mooy yonent bi ñu wax ne it yàlla ci ak leeram la soqi bind ci sayduna muhammad leeru sayduna muhammad mu bind ci yeneen bindee fi mbokk yi yii yan mooy firnde yi yàgg nañ ko dégg nag waaye lépp loo yàgg dégg fexeel ba dégg firnde la la koy firndeel ci waxu yàlla wala waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala waxu saaba yi nga xam ne ñoo yaroon ci keppaaru yonent bi gën ñoo dégg diine amu ci kenn ko wax lool kon liñ bëgg wax mooy wax ne yàlla dafa bind sayduna muhammad ci ak leeru boppam moom yàlla loolu njuumte la bal bokkaale la lu tax ndax yàlla melokaanam amul wenn melokaanam woo xamante ne ci melokaanam woowu la soqi bind mbindeef ndax yàlla ay melokaanam moo ko jagoo dañ ko cee war a wéetal moom képp moo ko jagoo kon buñ ne yàlla ci leeram la bind sayyiduna muhammad kon dañ naan sayyiduna muhammad ci yàlla la jóge loolu bokkaale la yonent bi alayhi yàlla da koo melal ne ko qul waxal gaa ñi ne leen ana naka la aw ilah déedéet néewu ko malaaka la néewu ko yàlla la ne ko basharu nee man day nit laa comme yéen bi maanaam yonent bi alayhi nit la nit nag ñépp xam nañu sunu maam mooy aadama yàlla da koo bind amul ndey amul bàyyi ci ak faaram la yàlla bind sunu maam xawaa mu am bàyyi amul ndey yonent yàlla isa mooy ki nga xam ne moo am particularité ñetteel leen am ndey te amul bàyyi yàlla bind ko ci baat boo xamante ne mooy kun dañu ko nekkal mu daal di nekk ci biiru yaayam mbooleen bindee fii ci des yépp ku ci ne da ngaa am ndey ak bàyyi ñoo bokk lu ñu leen bindee kon ku wax ne yàlla dafa bind yonent bi ci ak leeram na indi firne bal dañ naan ko tab bi nga ci bokkaale ndax wax nga ni kon yonent bi am na lenn ci melokaanu sunu borom bal ci melokaanu sunu borom lañ ko bind kon loolu wuñ kumte la waxit ne li tax yàlla bind mbindeef fi mooy sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam njuumte la firnde amu ci mooy lan bal day wuuteeg firnde li alquran wax ne jaamu yàlla wéetal ko moo tax yàlla bind nit ak kon lii lu mat a bàyyi xel la kon ñaarelu tomb bi nga xamante ne danañ ci ñëw ñaarelu tomb bi nga xamante ne moo nekk ci mooy wane ne jàng tawxiid jàng wéetal yàlla di ko jàngale dafa am solo moo di ne moo tax yàlla mi mbindéef ñetteel bi bi nga xamante ne moo mooy wane solo si nga xamante ne ne tawxiid da koo am solo ci jëmmam moo di yonent yàlla yónni yépp mission boobu moo doon seen mission mooy ñu fexe ba nit ñi di jaamu yàlla képp bañ a jaamu leneen lu dul borom bi tabaraka wa te it lépp loo xamante ne mooy dundub jullit bi mi ngi tege ci wéetal yàlla googu ci la nit ki war a soppe keneen ci la ko war a xarabe ci la ko war a bañe yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bokk na ci buumi ngëm yàlla yi gën a dëgër mooy di bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla bi maanaa bëgg ñiy wéetal yàlla bañ ñiy bokkaale yàlla bu ñu wéetalee yàlla mu neex ci sab xol nga kontaan bu ñu bokkaalee yàlla mu naqari ci sab xol mu naqari la nga mer yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mboole seen li doon seen mission mooy ñu woo nit ña leen yàlla yónnee woon ngir ñu jaamu yàlla rek bañ ko booleeg leneen bañ ko booleeg keneen ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمول بن يونت بو يالا ما بدون لبنكو. بودول ني دانيكو واخال غا ني نين لون جامو يالا رك بو كو وور كين واي نين واتالي كو جامو لنين بودول بروم دي تبارك كون بو ني خامي ني ميسيون بي تاخون يالا يوني يونت ني جيني نيت ني تي لندن تي لندن دي لين دوغال تي موي ووتي تي ويتال بروم وتعالى تي مبولن خيتو جامو يالا تي لا نيو سولو سيغا خامي جان توحيد امناكو ak di ko jëfe ak di ko jàngale damay tënk beneen bi nga xam ne mooy wane ne tawxiid dafa am solo ci jëmmam te mooy ñeenteel bi mooy tawxiid boo ko jëfee ëllëg yowmal qiyaama ku texe da texe ku texewul da nga texe waaye boo wuuteeg wéetal yàlla sag wéetal yàlla bu yàqoo ëllëg yowmal qiyaama kenn mënu laa tax kenn mënu laa tax nga texe faw ci safaan nga jëm loolu yàlla ya subhanahu wa taala moo ko wax képp ku faatu faatuwaale wéetal yàlla da nga dugg aljanna loolu dig la boo xam ne yàlla ak yonantam ñoo ko digge te yàlla ya subhanahu wa taala nu mu diggee faw noonu lay tëdd waaye nit buy faatu génn àdduna fekk mi ngi boole yàlla ak keneen ak leneen du texe te it bàkkaar boobu yàlla du ko jéggal yàlla ñu ci yàlla musal loolu buñ ko xamee kon ne xam ne tawxiid mooy wéetal yàlla ci mbooleem xeetu jaamu yàlla yi jaam yi di def jaam yi nag boo leen waxee jaamu yàlla yi dañ naan ah kon de xëy na mooy julli ak woor ak joxe azaka ak xëy na yu ko nuru waaye dañuy fàtte ñaan te mooy bunt bi nga xam ne moo gën a yaatu yi nga xamante ne nit ñi nañ ci bokkaale ak yàlla ak keneen wala leneen dañ koy fàtte booy ñaan ngir yàlla defar say mbir yàlla képp nga war a ñaan même borom xam-xam bi nga yaakar ci mom ak mbaax lu mu bax bax buy dund da ngay dem ci mom ni ko ñaanal ma yalla yalla fajal ma samay aaj loolu bu dagal la nga ko ci ñaanu borom xam-xam bi daganul nga ñaan ko fekk mi ngi tew lo xamantene yalla rek ko man boko defé rek bokkar nga ko yalla ndax kon da nga japp ne mom man na laa fajal sa aajo comme niko yalla yàlla mënee kon tek nga ko place yalla waxuma la nak bu dee dafa faatu bañ sul ko ci bir armée la nga xamne bo ñewon team armée lan yow li nga man tay ki nga tiim ci armée bi mënu ko loolu mooy lan moy man nga def ay yiw man nga jaamu yalla fi nga toll kii nag moom mënatu la jaamu yalla ndax ja ak jaamu yalla mom bu dee ñewé jeex bo xasse ba dee ak tay rek ngay am bu doon lu baax la lu baax bu dee safan la safan waye yow mi dund mën ngaa julli mën ngaa woor mën ngaa ñaan yàlla mën ngaa tudd yàlla ainsi de suite kon yow mitiin borom armeel bi mën nga ci jamono boobu loo xam ne moom mënu ko moo tax yonant bi alayhi salaatu wasalaam daal di ñuy digal ne da leen ziyaare armeel ngir lan ngir fàttali ko dee benn waaye ngir ñaanal ña fa tëdd moo tax bu leen daan ziyaare ginnaaw ba mu leen ñaanalee jàmm nuyu leen ginnaaw bi mu fàttalikoo dee wa inna insha allahu bikum la laaxiqun da leen di ñaanal yàlla njéggal ak yërmande ak jàmm mooy yàlla jàmmal leen ci fitnay bàmmeel ak mbugalum bàmmeel ak mbugalum saw ñaanal yàlla njéggal ñaanal leen yàlla yow mii ki nga xamante ne moo faatu jamono boobu yow da koy jariñ moom nag mënu jariñ dara ziyaare bi nga koy ziyaare lan njariñ nga ciy jëlee bankal sa baax benn mooy topp di nga topp sayyiduna muhammad ci dem ziyaare armeel nee na la defal nga def kon topp gi nga topp yonent bi da nga ciy am tuyaaba benn ñaareel bi mooy ñaanal gi nga ñaanal sa mbokkum jullit boo ko ñaanalee am na malaaka moo xamante ni loo ñaanal sa mbokkum jullit dañ lay ñaanal lu mel noonu kon yow ñaanal gi nga koy ñaanal malaaka yaa ngi lay ñaanal njariñ lu rëy la ñaaneel ñetteel bi mooy ñaanal gi ngay ñaanal sa mbokkum jullit yaa ngi rafetal jëme ci moom te yàlla dafa bëgg ñuy rafetal yàlla dafa bëgg ñuy rafetal leneen jariñ li ngay jariñu mooy boo demee ziyaare ko da nga ko bis boobu te fàttali googu day tax nga soññi sa bopp ci jaamu yàlla ak wéetal yàlla te loolu mooy tax a texe kon yooyu yépp ay njariñ la yoo xam ne da nga ko jariñ waaye moom aju tëdd ji lu mu lay jariñ lu jariñ daal kon lii lu ma ta bàyyi xel kon mboolem xeeti jaamu yàlla yooyu nga xamante ne moom la jaam bi di def mu wéetal ci yàlla subhaanahu wa taala dafa bokk ci li nga xamante ne mooy ak yàlla ji nga xamante ne jaam bi da ko war a xamlu di ko jëfe di ci woote te muy lu am solo kon ñeenteel bi kon mooy tawxiid mooy wéetal yàlla day tax nga texe bu ëllëgee waaye safaan ba mooy bu sa tawxiid yàqoo boo deewaalee bokkaale doo texe yàlla nee yàlla man na jéggale bép bakkar bu nit ki déwalé limay wax nak dama firi ay laye yu bokul yàlla néwul ci laye bi bu nit ki déwalé wayé inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi yàlla du jéggal ku koy bokalé moy ku ko déwalé lan moy firndel ni ku ko déwalé moy yàlla wax nga wax fële ne qul ya ibadiya alladhina asrafu على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يلا دي جيجل مولم بكر يب mboolem bakkaar yëpp même bu dee bokkaale kay même bu dee bokkaale boo ko ci tuubee bala ngaa dee yàlla jéggal la waaye boo ko deewaalee moom loolu yàlla dul jéggal comme ni mu ko waxee ca laaye bee kon foofu la ñuy xamee ni kon nag wéetal borom di tabaraka wa taala nekkete kët am na solo jàng ko ak di ko jëfe ak di ko jàngale ndax mooy tax a texe tey fii ci àdduna mooy taxa a texe bu ëllëgee fii ci àdduna luy firnde li amanu walam yalbisu imaanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ñi nga xamante ne dañuy dañoo gëm yàlla wéetal yàlla te dara dara ak wéetal yàlla googu ci bokkaale yàlla nee na ñooñu dañuy am sécurité fii ci àdduna sécurité bi nag bi ci jiitu mooy nga am daluk xol daluk xol sa xol dal sa xel dal doy na sëkk nga tok xalat daan ne man ndax amna lenn ci xétu jaamu yàlla lo xamné dana ko defal keneen kudul yàlla nga xalat xalat ne amul xétu jaamu yàlla boy defal yàlla xel xol mu dal bobo xel mu dal bobo ak sécurité bobu nga xamantene mom nga am en tant que yow sa sa ak sa bop ak sa ak sa borom loolu moy al am go xamantene ak texe gu nit ki di dund ci xolam go xamné ne kat yàlla yi kep ñoko xam ko xamantene tay bu dara newon woon xes da nga nan bismillah manam mangi dimbali ko turu yàlla allahu akbar buñ la ne woon eh diw ak diw ñi ngi lay tëkku ñom kat nenañ buñ la gisee wala buñ la jàppee danañ la def nangam ngani hasbunallahu wa ni'mal wakeel man de yàlla doyna ma sëkk te mom la wër sama mbir te yàlla nee na wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh ku wit yàlla say mbir يلا نينا دنا لا دوي سك كون حسبنا الله ونعم الوكيل غايو غايو باخيا بن لين واخي لولو لول لا ني واخو كون لولو موي سيكوريتي بيغا خامتيني موم غا ام سا ديغنتيك سا بوب ام كو سا ديغنتيك سا مروم ام كو سا ديغنتيك سا بروم سبحانه وتعالى كون لولو موي ليغا خامتيني موي تخيك ادونا بي وما عند الله خير وابقى خير للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون لا يلا دنجال ويتال كات يلا نينا mooy li nga xam ne moo gën te moo gën a des te mooy texeeg àllaaxira ga nga xam ne moo mat sëkk yàlla ñu ko yàlla defal kon mbokk yi nañu dem ci ñaareelu tomb bi ci gàttal ndax waxtu bi mi ngi ñuy dab mooy tawxiid jàng ko ak di ko jàngale ginnaaw bi nga ko jëfee solo si mu am bokk na ci li koy wane mooy lan mooy euh, jaan bi ci boppam dafa soxlawoo di méng ay mbiram bu ko méngul yàlla rek méngu ko kenen jambi yàlla da ko moñale at ta'alluh liñ ñu at ta'alluh moy muy jaamu nit faw mu jaamu ben mu wetal yàlla jaamu ko wetal ko ca wala mu def bu ko defalul yàlla rek da koy defal kenen wala lenen ngi non motax yàlla li fitratullahi allati fatara an-nas alayha la tabdila li khalqillah loolu la yàlla moo ñaale doomu aadama mooy jaamu yàlla te du ko boole kenn léegi nag loolu ko yàlla moo ñaale nag dañ mën naa soppiku mën naa soppiku li soppi mooy lan bari na ñaari wayjur danañ ko soppi àndandoo yu bon danañ ko soppi ay lënt lënt dana ko soppi topp bànneex dana ko soppi kon yi koy soppi bari na kon yooyu yépp nag da war a fexe ba yow li la yàlla moo ñaale muy lu ñoŋ mooy wéetal gi nga war a wéetal yàlla subhanahu wa taala te borom bi tabaraka wa jaam ñi dañoo am aajo ci jaamu ko moom rek jaami yàlla yi dañoo am aajo ci jaamu yàlla moom dong lu tax loolu moo dina jaam boo gis mooy ñii jaamu yàlla ak ñii jaamu lu dul yàlla koo ci gis rek xëcc njariñ moo ko tax a jóg ak jañ lor bëgg naa xëccal boppam njariñ bëgg naa jañal boppam lor moo xam fii la ci àdduna moo xam bu ëllëgee yowmal qiyaama ci ñi gëm àllaaxira ku ci nekk Wow, la bëgg waaw bu dee da ngaa bëgg a xëccal sa bopp njariñ jañal sa bopp lool te lépp ci loxo yàlla la nekk wax yow kay da ngaa am aajo ngir wéetal borom bi tabaraka wa taala jaamu ko moom dong ngir mu xëccal la mboolem luy njariñ loo bëgg jañal la mboolem lor doy ragal te jaam bi dafa bëgg li nga xam ne moo koy jariñ mu yegg ca dafa bëgg it lu koy jokkaleeg njariñ loolu ba man caa yegg lépp ci loxo yàlla la nekk jaam bi li koy lor bugg caa yegg te it buggul lu koy jokkaleeg loolu ba mu yegg ca lépp ci loxo yàlla la nekk kon jaam ñi ñoom ci seen bopp dañoo am aajo ngir wéetal yàlla subhanahu wa taala moo tax kon xam lu tawxiid ak di ko jëfe di ko jàngale solo sëriñ bi nga xamante ne moom lay mujje mooy sunu jamono jii nga xam ne ci lañu tollu tey nit ñi day soxla won nañ tawhid bu ñëk te dañuy continuer diko soxla ba faaw waye jamono bi nak la rawati muy jamono bo xamantene bokkale yalla yàlla tasaaroo na ci biir julit ñi waxon nañ ci tambali bi nit ñi fi ñu toll ci bokkale yalla subhanahu wa taala mbolem lu nit di sakku tay ci buntu bu mëna doon ci sunu société bi nga ay julit lañ dañuy dem ca njabarkat ba nga xamante ne mooy jëflanteeg seytaane di jaamu seytaane ñu ne kooku mooy maaman ba fàtte nañ yàlla ne moo mën lépp ñu ne lañ dem ca maaman ba maaman waaye duñ dem ci borom bi tabaraka wa mi nga xamante ne lépp ci loxoom la ne te kooku ñu naan maaman la tax ñu naan ko daa man mooy day jaamu seytaane seytaane di ko fajal ay aajoom nga xam ne yonentu wax na ca lam ca wax nga xam ne yàlla condamne na leen ci façon boo xamante ne boo demoon laaj leen rek te gëmoo ñeen fukki fan yàlla du nangu sa julli ñoom jabarkat yooyu buñ la waxee nga gëm yonent nee na weddi nga li yàlla ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal iyadu billah te teewul nit ñi ña nga def ñu ko def am njooxe ñi def loolu métier bokk nañ ci ñi ëpp xaalis léegi ci société bu fekkente ab société toll na ci sori wéetal borom bi tabaraka wa taala société boobu kon solos jàng tawxiid ak jëfe ko jàngale ko day gën a fet li ci boobu société bu ñu demee ba nga xamante ni nit ki maanaam li ñu tuddi al inqiyaad mooy wommatu ci ndigalal yàlla léegi ndigalal yàlla moom mënul leen a manipuler pour ñu toog wala ñu def déedéet waaye seen moroomu mbindeef moo leen mën a def loo moo leen mën a bàyyi lu leen seen moroomu mbindeef digal ñu def lu mu leen cere ñu bàyyi même bu dee lam leen di digal da leen di lor wala lam leen di tere da leen di jariñ même bu dee lam leen di digal dafa juuyoom ndigalal yàlla même bu dee lam leen di tere dafa dëppoo ak ndigalal yàlla ñu topp ko bàyyi yàlla buñ demee ba ci société boo xamante ne ñu ngi dund loolu ci nangul mbindeef wallis yàlla te yàlla subhanahu wa taala mboolem luy tax nit ki mën a jublu mbindeef ci defi ndigalam bàyyi ay tereem di ko defal xeeti jaamu yàlla yi dàq na ko ci mbindeef wane ne loolu dafa mbindeef ya yow xool leen borom bi tabaraka wa taala am man xalaqa alsamawati wal ard kan moo bi kan mooy ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf wa anzala lakum min alsamai maan fa ambatna bihi hadaiqa data bahri yàlla wàccee taw tool yi naan te yéen du yéen saxal garab yooyu du kenn ko saxal ci koo yaakaar na ku mën a doon sab tool kay saxal gàncax ga kan la yàlla képp la a ilahun ma allah ndax am na beneen yàlla bu ànd ak yàlla ci jëf yooyu bind asamaan ak suuf wàccee taw bi saxal gàncax gi bal hum qawmun ya'dilun waaye nag am na ñoo xamante ne dañoo jéng rek ñoo topp ndigalal yàlla am man jaala al arda qararan kan mo dënd souf si téye ko ba du baje ñu taxaw ci di ci def di ci tabax dëkk ci di ci bay di ci faj sunu aajo waja'ala khilalaha xilaalaha ana kan mo ci dawal ay dex mu dem gauche droite nord sud penk ak som ngeen ci rosé di ci nap di ci faj seeni aajo a ilahun ma'allah ndax am na benn yàlla boo xam ne ànd na ak yàlla ci defar suuf si ba mu mel nii mu mel daal di ci traversé ay dex ak i géej amul kenn ku def loolu ci mbindeef yi kon lu tax ngeen di jël nit ñi di leen booleeg yàlla ci loolu am man yujibul a ida daa ana kan mooy ki nga xamante ne bu nit ki loroo bay bay ñaan yàlla subhanahu wa taala mooy nangu ñaanam may ko faj fajal ko aajo wa yakshifu suu kan mooy ki nga xam ne bu ko feebar dalee wala loo xam ne da koy lor mu wuññi ko wéral ko a ilahum ma allah ndax am na beneen yàlla buy def loolu ku dul yàlla subhanahu wa taala amman yahdikum fi dulumaati albarri walbaxar wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati kan mooy ki nga xam ne moo leen di gindi ci lëndëmug jéeri géej géej gi kan mooy ki nga xam ne mooy yebal ngelaw li mu wupp li nga xam ne mooy niir yi taw bi wàcc xéewaluk sunu borom wàcc ngeen bég a ilahun ma allah ndax am na beneen yàlla buy def loolu kudul yàlla subhanahu wa taala taala allahu amma yushrikun moo tax ñi nga xamante ne jël nañ xeetu jaamu yàlla jox leen lu dul yàlla te ñooña defuñu li yàlla di def kooku yàlla kawe na ci bokkaale gañ bokkaale ndax moom rek moo yeyoo jaamu yàlla yooyu am man yabda'u l xalqa thumma yu'idu kan mooy ki nga xamante ne mooy bind moo bind nit moo bind mbindeef yi dara amul woon mu amal ko dara amul woon mu amal ko bu ëllëgee mu jëlee ko fi indiwaat ko ñun ñii ñëpp dañ fiy jógee bu ëllëgee yàlla dekkalaat ñu wa man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak suuf di wàccee ci asamaan ndox di génnee ci suuf gàncax ki kan mooy def loolu yàlla rek léegi nag yàlla dafa bokk ci manhajul quraan bi muy jàngalee tawxiid mooy dafay tuutal dafay dàq ne mbindeef yayoowul nga di ko jox lenn ci xeetu jaamu yàlla ndax dafa lott te ku lott yayoowoo ñu jaamu moo tax yàlla subhanahu wa taala ne woon allahu alladi xalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuxyikum yàlla leen bind moo leen di wërsëgal moo leen di rey moo leen di dekkal yàlla rek ci wét mu daan ne hal min shurakaikum man yafalu min dalikum min shay gaa ñi ngeen di booleeg yàlla ndax am na ku ci def bi moo tax subhanahu wa taala amma yushrikun la ko tëjee ne yàlla sell na kawe na ci bokkaale gi ñu koy bokkaale ndax ñi ñu koy bokkaalee ñooñu lottu nañ ci jëf yi nga xamante ne moom rek moo ko mën wa yacbuduuna min dunillah wala wattaxadu min dunihi alihatan laa yaxluquuna cheyan wa hum yuxlaquun gaa ñi dañoo jël ay yàlla yoo xam ne di leen jagleel ay xeetu jaamu yàlla yoo xam ne ñoom binduñu dara ñoom sax dañ leen a bind ay mbindeef lañ comme ñoom ñi leen di jaamu ni ñu leen bindee ولا يملكون لانفسهم anfusihim ولا wala naf'an te ñooña ñuy jaamu mënuluñ seen bopp dara mënuñu leen a jariñ mënuñu leen a lor bal ñoom ñi leen di jaamu mënuñu leen jariñ mënuñu leen lor wala yamlikuna mawtan wala hayatan wala nushuran ñoom ñi ñuy jaamu mënuñoo rey mënuñoo dekkal mënuñu dara kon lu tax ñu leen di jaamu lottu nañ te ku lottu yeewoo ñu jaamu kon nañu jaamu yàlla rek kon mbokk jullit yi loolu day wane société boo xam dañ ciy dund ñu yegg foofu ci ak bokkaale borom bi tabaraka taala day feddaliku solo si nga xam ne jàngale wéetal yàlla comme ni ko mbokk yi doon defee ci lël bii am na ko waaye buñ ko xamloo ba noppi nañ ko jëfee nag waaye buñ ko jëfee na ànd ak cellal bu tege ci ndigal yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala jariñ ci lépp loo xamante ne dañ koy wax ak loo xamante ne dañ koy jëf te lépp loo xamante ne dañ koy wax wala ñu di ko jëf di ko jaamoo yàlla sell ngir jëmmam te tege ci ndigal li nga xam ne moom la sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam rëdd moom yàlla yónni woon hada wallahu alam wa salallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain